Amadou Dramé journaliste Senbuzz. waaw d' abord damay réitérer félicitation collègue yi. parce que ak critique yi ak yëpp. malgré loolu yëpp. nga ñëw yegg si fii tey concevoir album ba génnee ko loolu du yomb. mais sama question mooy doon. dañu dégg ne si say wax nga ne yow sa musique jaral na la rey nit. waaw. ci ñi ko dégg ñu ne loolu waaw du luy luy promouvoir que Talla ak album bu muy soo génne ñu bëgg nga wax ñu yow fan nga jëlee loolu ak wax bi noo ko waxee euh, loolu sax maa ngi maa ngi jaale waa Kaolack yëpp parce que yàggul dara dégg nañ fi benn meurtre boo xam ne benn benn Mouhamed Cissé ah mm. moom moom américain bu ñu ak fii à à à Kaolack donc maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy jaale ak képp koo xam ne rek euh, dund nga affaire tiis bu mel noonu donc par rapport à à loolu ma waxoon donc nekk ko posé sax baaxul parce que j'ai pas dit ça dama ni sama staff bu ñu ma waxoon ma rey nit ndax musique ma def ko mais sama staff bu ñu ma ko wax parce que sama staff ce sont des musulmans yaa ngi dégg xam nga yi bu ñuy génne seen projet dañuy cambrioler ay banques yaa ngi dégg dugg prison. génne seen projet parce que amul man base bi financement bi ñu ci def tey man sama religion permettre ma ma sàcc sama religion permettre ma ma violer sama religion permettre ma ma cambrioler mais permettre na ma nag ma def faute de communication. yaa ma dégg mën naa créer faute de communication pour atteindre les gens ñu bàyyi xel ni Talla Diazaka day génne album la 30 est-ce que tu compris mën naa créer faute de communication nit ñu jàpp ni loolu dëgg la ci man. alors sama album laa bëgg jaay parce que du ma du ma nekk jeune di liggéey ak ay jeunes yaa ngi may dégg euh, mën naa ne album bu ñu liggéey ko ci durant un naa donc studio di xiif di daw donc buy génn euh, mën naa ni am na ñoo xam ni tey sama papa amul télé amul rajo te am tant nekk ma ci benn label am na label yoo xam ne tey bu seen artiste di génn dañ koy def publicité un un mois mais tey man am naa benn moyen def benn interview créer benn polémique boo xam ne sama album dafay jaaraale est-ce que dégg nga est-ce que voilà j'ai créé cette chronique pour nit ñi bàyyi xel ci sama album waaw man kan laa mën a rey sax man ma taxawee ak yow man man ma a rey yow ah waxuma la àdduna bu jeex bii nag man seen doom laa seen fils laa seen rakk laa. Euh, réseaux sociaux yi moo ëpp doole fu ay télévision mm-hmm. dégg naa sax léegi muy wax ni amuñu télévision mais léegi ku am téléphone am nga télé. Mm-hmm. Sénégal ku am téléphone am nga télé. bu njëkk ba dañ daan neexal ay télévision di sirage ay dàllu ñun temps yi ñuy génne suñu premier album yeeg yooyu RTS <coughs> rek moo pour nga jàll ci télé bi mais problème la mais tey jii ku génne sa album nit ñi xam la na nga fexe ba def affaire bu nice man nag yàlla dafa dogal talaa bi muy def bi muy commencé di def musique di woy benn moment dama ko doon tere peut-être am na ñu nekk fii ñoo xam ni xam nañ loolu mais bi ma demee ba gis ni am na talent jàmbaar la xam nga li ci des mooy mu jàng am na nag ñu yàgg di ma reproché ni ma lu produit booy bi mais il faut que ñu bàyyi ko mu dem bëgganteeg ay moromam xamanteeg gars yi dugub parce que àddina dara yombul ok mu dem jàng bi ñu demee ba gis ni tamit nii war na mat pour ñu jàppale ko parce que àddina bi moom koo fi gis dañ ko teg loxo parce que nit ki buy juddu président yi nga gis fii bi ñuy juddu individu mille francs yaramu ne lañ fi indi dañ leen a jëli lijjanti leen defar leen ba ñu nice ñu tegu soo deewee tamit doo mënal sa bopp ñaar dërëm nit ay nit ñoo ñëw defar la bu mu mool yóbbu la kon nit day teg nit amul kii sama doom la wala loolu parce que man yàgg naa dimbali ay nit yoo xam ne du ñu sama doom mais nag artiste la musicien la su ma gisee sama doom bi def musique bëgg na ko peut-être album metti na cher na li nga mën mooy jàppale ko loolu yow te tamit franchement génne la mu ngi ñafe ah. génne bi jur muus booy bi du muus génne loolu ah voilà album bi nag moom mënuñu wax liñ ci def parce studio cher na fay musicien cher na est la maa ngi dégg sax sànq ñu koy posé di ko laaj am na am na featuring ko fàtte. que non seulement la bii ma ngay seet. seen refus quoi. daf ci béy ko dafa ñëw taasu ci. donc daf koy fàtte parce que loolu. Mhm. voilà et et xam nga c'est la première fois voilà donc il faut que voilà yooyu ñu koy ji. mais ñoo koy féliciter di ko encourager. et puis di la presse parce que man tey yaakaar naa ne lu ma doon presse moo ma ko def man aw ma télévision aw ma rajo mais su ma génnee léegi def benn sortie mu am di koy def mooy gars yi ma jàkkaarloo yéen a ëpp doole foofu télévision yi. yéen yéen a ko yor ñooy bagage bi. voilà amul télévision bu kenn dosé. te gars yaa ngi nii ku ñu teg nga tegu. man moom pare naa ci. Mm-hmm. li ma am maa ko xeexal sama si bii xam nga lu ma accompagner leen dugal leen studio fayal leen ngeen génne seen album li ci des nag yéen a koy xeexal seen bopp su ma yoon nekkatu ci pas sax ko jox <laughs> ah pare naa ci léegi nag yoon waa boobu am ngeen CD jaay am ngeen génne CD crise bi jaay leen organiser seen i concert doo sama yoon nekkatu ci jërëjëf